bi mu amee xale yu ñu ci bari loru ci euh, da cee taxaw moom jàmm rek lu bëgg bu am ci réew mi euh, lu dal kenn ci njaboot gi de mel ni moom fa mu nekk daf ko fay fekk moo tax mu jëkkoon jël délégation boo xam ne daf leen yebaloon ngir ñu fexe ba jàmm am akuk dal ñooñu ay kilifa la ñu woon defoon nañ seen liggéey ñëpp xam nañ ne loolu jur na lu am njëriñ ci réew mi yëpp bi loolu jàllee nag mu amoon loo xam ne daf ko fàggu woon ngir bëgg koo séddale ñi nga xam ne ñooy njabooti ñi nga xam ne dañ cee loolu loolu nag moo ñu yëkkati euh, ñun ñu bàyyi ko Touba di ay taalibeem mu yónni ñu ngir ñu jóg fu ci ne ñu dem fa fii ba Ziguinchor fii ba Bignona fii ba euh, euh, Kolda croisement Diaroumé fu ci ne dinañ fa dem ña ñu dégg ne loru nañu ndax de source officielle de source hospitalière je veux dire donc lépp loo xamante ne xam nañ ko ci ne euh, nit ku loru amoon na ci topp nañ ko ba nga xam ne lépp leeral nañ ko sëñ bi ba sëñ bi def jëf ji kon euh, sëñ Lamine jaase dafa gaañu woon kon euh, moo taxoon ñu sëñ bi jox na ko ñeent fukki junni loolu moom lañ jógoon di ko indi te sëriñ bi bu jëfee fow imam bi ak chef de quartier yéen ñii kilifa yi ngeen seere ko rek moo ci am solo ñu xam ne ñun tamit dañoo bëgg transparence ci li ñu yónni moo tax ñu indi teg ko seen loxo jërëjëf jërëjëf jërëjëf am na sëriñ bi li mu def ñun dañ ci kontaan parce que musul am lu musul am nag su amee dañ koy wax moo tax dañ koy ñaanal rek yàlla wéral tërëb guddal fanam ak mboolem taalibe yi mu nekkal ci barke xaadim ne li mënoon na ko bañ a def ne am na ñoo xam ne ñii ñu ngi fii waaye ñun bi ñu yëgee loolu ñun taalibe muridi billaahi suñu xol dafa sedd ma ne sëñ bi de li mu def nii su fekkoon ni ñëpp ni moom lañu ñu mel ah alhamdulilah rabbil alamin waaye nag nit ki moom ni nga mel moom ah yal na ko yàlla saxal dolli ko wér guddal fanam ci barke xaadim waaw jërëjëf kontaan nañ lool waaw kii mooy suñ chef de quartier kii mooy suñ ilimaan waaw ñun ñu baax di leen ñaanit ñaanalit sëñ bi lim leen sant ngeen koy dox yàlla nañ ci yàlla defal yiw yàlla nañ yàlla sàmm ba ngeen dox ko ba mat sëkk ba ngeen delloo waat ko ci loxoom sëñ bi nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may fan gudd yàlla na fi yàgg te wér te yàlla bàyyi nu fi ñun ñëpp ñun nag dañ leen di xamal ne suñu xol dafa sedd guy ñoo ngi wax ci turu mbooloo mi turu unité 16 turu waa dëkk bi turu parcelle turu ñëpp xamal ne suñu xol sedd na guy ci sëriñ bi suñu xol sedd na ci yéen délégation bi ko indi bon mun daal suñu wax pour mu gàtt dañuy xamal ne ñu waa kër sëñ Touba ñoo ngi yeesalaat suñu bopp di bëggalaat suñu bopp ndax mbir mi bi mu amee ñu ñëpp wax dëgg yàlla ñu dégg ko suñu xol sedd na guy. man bëggul ma jógee fii ma dem ba foofu man gisul ko man bëgg naa ko dem ziar. incha allah maanaam bii yëpp man ziar na ko. incha allah Serigne Fall wax ma bul géej fii Serigne Abdoulaye Mbacke wax bul géej fii. Serigne Saliou Mbacké wax ma bul géccu looloo tax ko yoroo bii rek man dinaa dem waaw maa ngi ñaan nag maa ngi ñaanal moom moom bu baax la moom bu baax la yàlla xam na bu baax la moom mu ngi jubal réew mi pour na jub nekk benn ko def noonu nag tiyaabu la am yàlla guddal fanam yokku cër bi moom li nga xilif yëpp yàlla am no am barke yow ko ñëw fii yàlla barkel yow yàlla ubbil yow kenn ku ne li nga bugg yàlla no am ko yàlla nan moo joxe yàlla yàlla man ñaa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla jox yow barke Muhammad sallallahu alayhi wa faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi Sëñ Bamba noo ngi deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu noo ngi dagaan ci musaar ma nekk marwata ak safa ak xaqi xamdi mustafa yàlla jébal xarni bi ak xaqi moo ñu ngir ñu dikk fi euh, mu am loo xamante ne da ko yëkkati woon di ko jàppale njabootu ñi nga xam ne euh, dañoo loru woon ci xew-xew yi fi amoon te jàll fi te ba mu amee Euh, doon loo xamante ne doomi waa réew mi lañ moom sëriñ bi fa mu toog rek loolu day daal di agsi fi moom ndax bu doon moom moom bu doon sagoom saa su ne mi ngi fexe luy tax jàmm rek am loolu loolu moo moo moo tax fa saasa moo yebaloon ay kilifa ñu jóg dox wax def ay jéego yu tax lépp dal te dal gi moo baax ci ñëpp loolu ba mu ko defee ba noppi nag euh, yamu ci moom bi kilifa yi defee li ñu war a def nu doon ay taalibeem mu yabal ñu yónni ñu jox ñu ab lim boo xamante ne kenn ku ci ne ci njabootu ñi nga xam ne dañ cee loru am na lu leen war a jox bu dee koo xam ne dafa génn àdduna ak lañ leen war a jox bu dee ñaam ay gaañu gaañu ñu xool fa gaañu gaañu bi toll ak lañ leen war a jox loolu daal moom lañ doon dox euh, ba agsi fii di leen ko massawu dina xamal ne loolu nag yëkkati nañ ko jox leen ko waaye ñaanu sëriñ bi moo jiitu ngir fa ne euh, suñu borom gàttandu ko yërmandeem gàttandu ko njëb njëggalam te te te te ñi fi des ginnaaw suñu borom wàcce ci ñoom ndimbalam ba nga xam ne lu nu mel dootu leen ko gis mukk ngeen di gis ay yokkute di gis ay njëriñ di gis ay ndam lii daal mooy kàddu yi nga xam ne moom lañu ñu seen yónni woon dañoon bëgg it fu ñu ñëw ñu fekk fa ay mag yoo xam ne nañ moo xam ilimaan la moo xam chef de quartier la moo xam ay mag yoo xam ne ay kilifa lañu ci ci ci ci gox bi euh, ngir rek seere ko ndax loolu lu baax looy def te teg ko ci yoon teg ko ci transparence dafay baax ay nit seere ko ñoo xam ne nañ ko war a doxalee ak ni ko sëñ santaane defee nañ ko noonu kon kan nañ koy teg ci loxoom waaw ginnaaw fekk nañ kon ginnaaw fekk nañ fi yaayam kon nañ ko teg ci loxoom soxna si mën ngaa jóg ñu jox la ak seexam waaw waaye yaayam yaayam mooy seen kilifa

ñépp samay xarit lañu xam naa leen bu baax kii nag mooy nijaay yi ki wàccub liggéey moog yaayam a bokk ndey ak baay kii mooy seen maam moo jur seen yaay kee mooy seex bi maanaam góor ak jigéen la kii mooy seexandoom moo kële ak kii ak kii ak ku góor kële ñoo bokk ndey ak baay kële nag mooy taawu kër gi man nag goro laa fi ndax seen mag bu ji seen rakk bu jigéen du bokk ak ñoom ndey ak baay maa koy denc am naa ci ay tuut tànk kon ci kër gi la bokk ñu yëkkati lépp nag teg ko sama loxo moo tax tey ma sant torop ndax yow sëñ Yuusu yaakaar naa xam naa la bu baax ca daara ja fa nekkoon kon nag sant naa bu baax sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa mooy lépp sëñ Tuubaa nag daa am ku ko fi toogal te yàgg na koo def du tey la ko def kon sëriñ bi ñun ñu ngi koy sant bu baax a baax yàlla guddal fanam. Mm-hmm. te wéral ay ciram. yàlla na sama borom may ko wér may ko kattan di nuyu xalifatu al muridu mm-hmm. ngir lislaam waxtasibu bi abdillahi jamian wala tafarraqu mm-hmm. bu ne nit baax na nan laaj mbokkee ñii de naam juddoo ñu si quartier waaye nag ñu baax lan ñu baax lan wax dëgg yàlla ñu lislaam lan yaayam jii de chaque jour su may dem géej. chaque jour maa ngi gis mu yor mbalit bala kër gi daay daay daay kii teel a jug ak lislaam ak maam jële kon aji daawol bi yàlla na sam borom ba xaroo ko ajana lii day comme li nga wax rek ñaan gi mu jiitu lii fa tabaarakallaahu dal rek yaa salaam yàlla sam borom jàppale ka chaque fois moom kàddoom dina lay déglu ngir jàmm rek la paix te loolu mooy lislaam chef de bi nee na ñu ngi leen di gërëm di leen sant nee na ñii day dëkkandoom yu baax lan wax dëgg yàlla temps yëpp fii la nekkoon